légion ba nekk ca Thiès ñu koy wax centre ouest mu ëmb ñaari région Diourbel ak Thiès ma ñëwoon bëggoon waxtaan ak yéen ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaaru màggalu Touba bi ren nga xam ne euh, ci 26 septembre bii lañ ko war a màggal màggal gi moom euh, kenn du wax euh, fi ko réew mi teg ci njariñ ci importance nga xam ne bu jotee lu mat ay millions millions nit ñooy seen sol seen mbubu bëgg a ñëw ci dëkk bu tedd bi période particulière muy mbas mi ak euh, euh, taw bi hivernage bi nga dañoo nekk ci digg taw euh, gendarmerie a

Temeri oto ak fuk ak juróom euh, juróom-ñaar fukk moto ak juróom ak euh, ay fafal naaw yi ñuy wax drone ñoo xam ne moo ñuy wax fan la circulation bi tage mu ñu koy won direct fii ci ñu nekk ci Touba ci quartier tiawen euh, li may def fii ci liggéey nag sama nattangoo yeneen légion yi moom la ñuy def muy Dakar pour permettre waa Dakar ñëw waa Ndar ak waa Kaolack ak waa Légion Est nga nekk nga xam féete fële ci wàllu Tamba tey ci suba nag dañoo amoon gan muy général de division Moussa Fall mi nga xam ne tey moo ŋànk bopp gendarmerie ñëwoon fii ci fii ñu nekk ci Thiawéne ci Touba xool ni ñu toogee xool fu ñu toll ci liggéey bi xool directive yi ñu joxoon avant màggal gi est-ce que ñi ngi koy saytu di ko doxe mu jubbanti lii rëqoon biñ ci joggé ñu and ñun ñëpp def délégation mo seeti won khalif général des mourid ak porte palarom don sakku sen ñaan ak ndimbal ba noppi euh, joxe euh, walam ci magal gi euh, ci pour que magal gi commencé ci bisimilahi rahmaani rahim jeex ci alhamdulilah joxé na fa ay masque ay gel ak ndox ak adiyam sant bu baakha baax dafa bu fi fii taxaw. mu ne ndax xam ne fii nga taxaw. bu fi taxawee. mu ne Serigne Touba nga fi taxawal. mu ne loolu nag doy na sëkk. mu ne doy na sëkk sëkk. ci warteef ci sa ci sa warteef. mu ne liggéey bi ñu la jox. ginnaaw Serigne Touba ci dëgg na ci moom. mu ne ginnaaw Serigne Touba dëgg na ci yow. mu ne lépp dana yomb incha allah. mu ne lépp dana barkeel. mu ne nga sant yàlla te gën a góorgóor baax a baax. mais nañ ne Sëriñ mu ne ginnaaw xamees nañ Sëriñ Tuubaa dëgg na ci yow rek. mu ne na sa daal bu baax a baax. mu ne kon xelam dal na. mu ne yaakaar bi rëy na lool. mu ne kon nag mu ngoog rek. mu ngi lay ñaanal baax a mu ne liggéey bi rëy na lool. mu ne waaye mi ngi ñaan suñu borom gën la gàttandoo tawfeex Serigne Touba mu ne bu la gàttandoo tawfeex Serigne Touba rek lépp dana yëwén lépp dana yomb lépp dana barkeel mu ne lépp nag day soppiku di ndam rek nag mu ne ndamal Serigne Touba di ndamal réew mi mu ne loolu rek la mu ne kon mu mu ne am na ci xel mu baax a mu ne suñ xolam it seet na ci cër bi nga xam ne moom la le président jox mu ne cër boo xam ne ki nga jox xam ne nit ku Serigne Touba ne loolu xolam dana sedd guy mu ne kon mi ngi mi rek mu ne na ngeen góorgóorlu baax a baax mu ne jërë ngeen jëf kon na ñëpp taal seen loxo bisimilah.

صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر صلاة